أدعو إلى علتي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا ناجيته جل ومن وكرمني تكريم عاد وكل لي من لخن بريا رحمن هب لجميع خلق رحمة من يغني عن لسر من قرآنه خرعا حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جد عمبدا yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa aadiyan rada jaama balsatin la feeñ fa njëreem nee nañ keroog la sëñ bi wax des koo yéem nee na keroog diine ji ak lislaam ji dëgg nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ciy daraja ak i ngëneel moo am maxraja ba ba dellu see mu dat berndeel dal néew turam abdul ahat moo barkeel am naa ci yaakaar lool ca abdul ahat mile kon jooja yaakaar seere say jëfam yile mu am fa ab dal di jàngi alxuraan faf ko fa mokkal man xaroot man na bayaan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 فالعلم لا بكثرة الرواية بل إنه نور مع الدراية مجلت لير خمخم دراية لولا ورا الدجوم تجن آية تعلموا الحلم لوجه الله لي موتخن لفم دجم تليه ومن حوى حلما وليس يعمل لبم بوخ ممل نك سبلو فليس كل الحلم نفحا سحتوى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 di ko ñaanal tey séeréel ñaan googu Serigne Touba mi nga xam ne mooy maamam ñu yaakaar ko àddina ak alaxira ñun biñ ko séddoo ci waa kër sëriñ Abdou Ahad ñun la xam ne ñun am nañu cër boo xam ne bii ñeew ñu kenn ci cëram ndax jëmm la joo xam ne jii yàlla sunu borom dafa dogal muy sëtëb sëriñ Touba di ak leer ci Serigne Abdou Ahad waaye lépp lu ñuy ab taalibe bi di séntu ci sëriñam loolee Serigne Touba mii maamam daje leen ko def ko ci jëmmam jii muy jom ngor sell am lislaam am ak taalibe wàcce boppam ba ñëpp mën koo jëriñoo ñun waa Bambey nag yàlla suñu borom dafa dogal bi ñu àndeek moom ak léegi yàgg na yaakaar na jamono ji nga xam ne ñi ngi tàmbali ñaanal eh, def def màggale sëriñ Abdou ba léegi si yaakaar dañ koy ànd ak moom li ëpp ci ay at nag day fekk noonu duñ fi nekk dañuy génn nekk ci biti waaye lu ñu fi ñàkk ñàkk nekk tamit ñi nga xam ne ñoo fi des ngi dégg Malick Gueye di wax ne Eh, eh, eh, ba ba sëñ Fall di xutba ci jumaa ja ca ubbiteeg jumaa ja bi sëñ Basiru Mbàkke duggee sëriñ Fall dafa ne teg ba sëñ Basiru toogaat sëriñ Fallu daal yeesalaat xutba ba loolu moo tax ba bi kilifa yi dikkee ñu taxawal sunuy kàddu ndax jox leen war ma waaye damay wax ne ñun ñi nga xam ne ñun ñoo teew nii ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo teew te teewuñu ñun ñëpp dañuy ñaanal nañ yëg gi nga xam ne moom la am ci taalibe yi na nag nun saa buñ dikkee lu mu xat-xat dinañ yaatal ci boppam waxtaan ak ñun saafara ante ak ñun ñaanal te bu ñu ñaanalee lu mu ñu ñaanal ren bu déwénee dañuy teg bët ca lam ñu ñaanaloon kon ay ñaanam ci ab xolom la koy tibbee te kenn ku nekk xam nga ne ku Seex Seex Abdou feeñal jamono doo doon nit ak caaxaankat kon moom mi nga xam ne ñun mooy suñu bunt Sëriñ Abdou Lahad dañ koy sant ko gërëm di ko ñaan ki di ñaan lii ma waxoon léegi rek mboolem ñi nga xam ne ñoom la sëñ Abdou Lahad feeñal jamono ñi ca gën a gudd fan yal na ko ci yàlla boole te yàlla suñu borom may ko barke ak tawfeex ba li mu yéene liggéeyal maam Serigne Touba sans may ko kattan gu ko mën a liggéeyee te mu ànd ko ak bokki taalibe yi saa bu gëstoo nag yàlla nu gis ndax fu ñu ko mës a fekk fu nekk du ñu jaawale kenn moo tax ñun tamit wax dëgg yàlla du ñu ko jaawale kenn ñoo ngi sakku nga ñaanal nu ñu am kattan ba liñ yéene sa jëmu ji ñu mën koo jëfee te sëñ Touba tax.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 la لله توبة من أدنى قفار قفار ليغفر ذنوبي وفك كان كبلي بمن علي لتركي ثورهار بمن يخاطبني في ثور روضته بيتان من خول من بالعرف أمار سرمنت بوين ذات القدار وعلى من دوني فعل وخار jëfam ci nit ñi yàlla dong moo ko xam xam naag buur yàlla dong moo am mësul boddu mbaa tooñ doom aadama mend bi naa mësul ni tooñ na ma mësul boddu mbaa tooñ doom aadama menn mi daa mësul ni tooñ na ma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 ku aw sarihatu te aw xaqiiqa la ku leeri mbir moom du xiili xaala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral koo ko mosaan fekkit ku baax lay toogal mësula jëw nit te bëggul ku jëw fi moom ku jëw fi moom su ko yëgee nga dal ni xiim cërum ngëneelam ba ko yàlla jagleel ca lay tibal nun ñii ko yàlla booleel sax ci liggéey yàlla yàlla fàtte adduna man jortu naa ni kii jikkoom ya fàddu na xëccoowuloon ci àddina ay daraja ngir jaay na Mbàkke ñoo ngi lay nuyu nuyoo bu am tàmbali taamutub yemukaay li la ñaanal nga yàgg fi lool te wér ak njaboot gépp ak képp ku la ko yéene di ñaanal soxna Njaxab Cheikh Abdoulaye mu nga xam ne mooy sunu yoon ci sëriñ Touba ñu santaat yàlla bu baax di jël di jul ci Seydina Muhammad sangu sang di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér di ko ñaanal njaboot gépp yal nañ fi yàgg te wér ballay sax njabootu soxna si Cerno laa ko tàmbalee ñu ngi nii toog njabootu soxna bi macha allah ñu ngi nii toog soxna Ndaa ñang mi ngi nii toog moog waa këram waa Njoxaane ñëpp ñëpp ñëpp ngi nii toog di la ñaanal fan wu gudd waa gët ànd ak wér di la ñaanal nga def koo téeméeri at door a tàmbale di ko def yàlla musal la ci cat musal la ci ndog musal ci njaboot gépp sàmm la sàmm njaboot gi di ñaanal sama bàjjan ma ne ko di ñaanal sama bàjjan maam Astou Mbacké sama xarit sama soppe soppe ñëpp yàlla defal ko boroom kër bu baax bu nu attan attanu ñun ñëpp balaa weer wi déwénee yàlla ñu du indi seen teraanga ci kër gi yàlla bu ñaan yàlla tépp ñu ngi koy ñaanal yàlla musal ko ci cat akum ndokk ndax cat kat dafa sew may ñe tàmbaleel cat li sama bopp yàlla na ko yàlla musal ci cat akum ndokk sàmm ko aar ko suturaal ko yàlla fi yàgg teewul bàle si biir sëriñ Mbacké di sant nag bàjjen abi Mbacke mooy sunu jëwriñ ci kër gi soxna abi moom sëriñ Abdou Mbar rek sëriñ Cheikh abi mooy sunu jëwriñ ci kër gi waaw di sunu bàjjen di sunu lépp macha allah mata ko sëkk nag bëgg soxna si ba yemalu soxna sekk dara fu soxna si teg ab tànkam abee ngi ci toog ci wetam jaayee njuuralam jënde ko taalibe loolu ñu di ko ko sante te di ko gërëm ndax ñu soxna si rek am ndax mooy sunu cër ci sëriñ Touba moom sëriñ Cheikh abi ndax sëriñ bi kat lu mu fi gën a yàgg mu gën a neex ndax sëriñ bi day jox defe ay ndigal di mooy tere nekku dara dara ci luñ koy tere loolee macha allah ci la tonqi ak njabootam ak njabootam kenn déggu leen ci lenn siraatal mustaqima waaw nekk ci li leen seen bàyyi digal ñun ñii tamit macha allah ñu toqi nu ti xamuñu leen lu dul def lu baax rek amuk taalibe bëgg sëriñ bi ñuy ñaan nag mbàkke nga ñaanal nu loole sax ci sunu xol yàgg sunuy dënd ba nu dee nga sul parce que sëñ Touba sant nañ bu baax a baax a baax di gërëm di ñaan yàlla ñëpp nag waa Ndindi ñee ngi toog daayira Ndindi ñu ngi lay sant di la ñaanal waaw ñëpp ñu ngi lay sant te di la ñaanal gudd fan gu ànd ku gër yan na la cat seexlu waaw xel nag day fattu soxna Faati Mbacke moom sëñ Abdoulaye borom dër bi mu ngi nii ci biir bàllay sa lépp moo moom it ndax moo di taw tamit ko sëkk macha allah foo taxaw mu taxaw fa bëgg li yëg la saf wala faale la loolu tax ñëpp fonko ngir yow soxna maam xarit soo ba tey ku ne xam na ne wérut waaye mi ngi moom it toog moom demut bu sewut meetar ndax yow kon nag Cheikh Abdou Lahad moo tax ñu jàpp la yàlla na la sàmm te sàmm leen ñu fekkee lépp sa lépp buñ ko fekkee yàlla nañ ko tal sant nañ gërëm nañ nag Mbàkke di ñëw ak asaka yéene bëgg na nga ñaanalaat nu ñu ngi laat sëriñ bi ndax ñaale sëriñ bi du doy sëriñ bi lu mu fi gën a yàgg mu gën a neex yàlla nañ fi yàgg yàgg sëriñ bi yàgg fi yàgg njawoot gi ndax sëriñ bi moom lu mu dund doyut lu mu dund doyut yàlla na ko yàlla defal fan wu gudd ba ànd ak wér ak yow mi ñu fekkee lépp te tal ko suñu xool sedd na man daal sama xol daa daa wax ni addunaa ngi nii lum la andil cib xaritam la ko nangoo la jëlal fu ko masaafiir bajjo jaar fa jàll te du ko laal ëskey satum maam balla fu jaar te du ko laal ëskey satum ci réew mi bàyyi fay jeexiital mbaatol ba kàbbu baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jege yonen ba xuus na ci géeji leeri ahmadul xadiim duy na ba gi jal moo di xaadimul xadiim jëfal na seex bamba ci taalibeem yi jëfal ko it ci gaaya réere yoon wi xaadim rasuul moo ko sahaaba te du ci dañ li feeg bisub layooba neb jant leere saa su tolloog tisbaar la gën leere jaam ñi moo doy guwaar